maitre maître Massokhna Kane ñu ngi lay nuyu. moo ngi leen di fay di nuyu seen auditeurs yi. Mhm. Euh, di leen sant ci invitation bi ngeen may invité. jërëjëf ñun ñoo lay gërëm fàttali ni avocat nga yow tamit yaa jiite SOS consommateur alors maître euh, ñuy waxtaan ak yow en tant que acteur de la justice maanaam ku yëngu ci wàllu yoon euh, ban yëg-yëg nga am bi nga gisee magistrat yi di xuloo ci seen biir jaaree ko ci yéenekaay yi tuumaalante surtout wàllu ger ci nu ko defee d'abord bala ñuy ñëw ci. tuuma yi. waaw niñ ko defee vraiment naqarlu naa ko. te euh, ñaawlu naa ko rafetul dara. te loolu kenn mas ko gis fii ci justice Sénégal ñun ñu ngi fii depuis presque quarante ans mais lu lu mel ni kenn mas ko gis mm. euh, ñaaw na ba fu ñaaw yem et loo xam ne lii warul woon mën a am moo am mu boobaa nag il faut en tirer les leçons il faut ñu ñu xool loolu naka la ame amee euh, ak lu tax mu am mm. voilà. donc euh, vraiment euh, ñi mu concerné aussi euh, bon juge Dia man xaw ma ko bu baax xam naa ni ci magistrat yi la bokk xaw ma ko bu baax mais ki nga xam ne xam naa ko bu baax mooy juge Ousmane Kane Ousmane Kane wax na ci fan yi nee na mi ngi fi depuis quarante ans ñun ñi ay avocats yi nga xam ne ñoo prêté woon serment en 1982 ñu ngi fi depuis bientôt quarante ans aussi donc xamante nañu ak moom hmm. li ma mën a wax ci moom ci suma diggante ak suma tëraayu bàmmeel suma diggante ak suma serment suma diggante ak yàlla mooy juge la bu xam ne bi am na expérience euh, non seulement am na expérience mais li ñu ko xamee mooy redresser ay tort maanaam redresser ay erreur justicier la ñu mën a wax ni moom la Ousmane Kane dafa nekk koo xam ne kii ku teey la d'abord mais ku am caractère ku am fulla ku jël liggéeyam au sérieux loolu lañ ko mës a te heureusement que mi ngi nekk cour d'appel parce que xam ngeen cour d'appel mooy atte en dernier ressort donc erreur yi mën a am ci atte yi nga xam ne c'est au niveau des tribunaux ñoom waa cour d'appel ñoo war a loolu moo tax cour d'appel dafa am importance surtout en matière pénale ñun gis nañu Ousmane Kane à travers des dossiers mu redressé ay tort yu bare erreur yu bare yoo xam ni daf doon gaañ ay nit mu koy redressé te damay wax ni li may wax suma diggante suma bàmmeel laa koy wax te ñu bare ñoo xam ni ay avocat la ñu am euh, ancienneté bi ñu am mën nañu wax lii ma wax walla ñu wax lu ko ëpp Ousmane Kane sérieux lañ ko xamee mm. ak euh, toppatoo liggéeyam nit ku dal la nit ko xam ne ki li muy am courage redresser ay dossier yoo xam ne yi des day ordonne complément d'enquête moom ak membre euh, chambrem dañuy ordonner complément d'enquête ay erreurs yu grave yoo xam ne yi day am ci ay décision te loolu mënta ñàkk mm. parce que c'est une justice humaine mm-hmm. nit mooy atte mais ñoom comme ñoom ñooy atte atte yi nga xam ne moom la ñuy atte en première instance seen responsabilité dafa rëy de sorte que ñun liñ ko xamee mooy rigueur ak courage u remettre en cause ay décisions yoo xam ni bu ñu demee ba ci ba ca mujj ga dañu xam ne lii erreur la woon donc dafay redresser ay erreur ci lañ ko xam loolu la ñu mën a témoigner ci moom loolu tax bu ñu déggee wax ji wax ji métti métti nañu trop te gëmuñu ko aussi Hmm, gëmuloo ko hmm. waaw non man man sama bopp man gëm ma ko gëm ma ko mais enquête yu IGAJ bi def inspection bi dana ci wane lu leer Ousmane Kane daal xam naa ni daal suñu digganteeg suñu bàmmeel témoignage yooyu la ñu mën a def ci moom defuñu ko pour lui faire plaisir hmm. dañuy wax suñu digganteeg yàlla ak li ñu xam ci moom voilà d'accord gëmuloo euh, li ñu ko tuumaal euh, ministre de la justice moom euh, gis na ne yëf yi rëy na lool ba tax mu daal di kon activer lii di igage loolu dal na sa xel enquête bi ñu ubbi waaw en tout cas man gëmuma ko gëmuma ko comme ni ma wax ça ne veut pas dire ko dama koy weddi parce que mënuma weddi loo xam ne ma ko mais yaakaar naa ne enquête igage bi dana leeral yu bare mais gëmuma ko encore une fois hmm. gëmuma ko parce que xam nañ nit ki te lu mel ni occasion ngeen ma may pour ma mën a joxe témoignage boobu ci moom mënoon naa bañ a am bii occasion mais comme may ngeen ma occasion ma wax ci affaire bi lii laa ci mën a wax suma diggante ak suma bàmmeel. d'accord euh, léegi euh, ñu ñëw maître ci njeexital bi xew-xew bi mën a am ci nit ñi ak ni ñuy gisee yoon tey déjà ñu bari amoon nañu xel ñaar ci yenn doxalin yi waaye lii tey lan la mun a def encore ci gis-gis bi ñuy am ci ci justice. waaw lii euh, dafa dafa rafetul te comme ni ma wax ma suma ko gis man. daan nañ fi gis ay problème euh, ay dossier ay affaire u yu mel noonu. ay indépendance de la justice ak euh, yooyu indépendance ay affaire u sax ay waxu corruption daan nañ ko dégg mais te mu ñu wax ni amul. Hmm. loolu ku ko wax da ngay wax lu la neex ku wax ni amul da ngay wax lu la neex. Hmm. kooku ci service public yëpp la am te justice mucc ci donc loolu lu am la mais en tout cas ni ñu ko waxee nii lu ñaaw la. Eh, te itam eh, kiñ ko waxal ñun gëmuñu loolu ñun ñi nga xam ni xaw nañ fi yàgg waaw loolu nag ça ne veut pas dire que mënta am mais même bu amoon waruñu ko waxee nii en public loolu póotum biir nekk la hmm. loolu xëy na au niveau ministère mën nañu enquête ba xam ba jël sanction yi ñu war a jël mais loolu dafay dafay ñaawal deru justice li li am ni dafay ñaawal deru justice day tax population yi eh, seen gëm ci seen justice Euh, mën na am mu wàññeeku ci wala mu jël ci un grand coup hmm. que nit ñi discréditer justice ci tamante yi nga xam ne moo ci am. d'accord ñu des ba tey ci wàllu justice maître wax ci grève SYTJUST bi nga xam ni euh, ëpp na ñaari weer léegi euh, bi mu dooree ci noonu nag ñu seetlu tamit ne kilifa yi dañu def tekkaaral gu yéeme waxuñu gisuñu tam benn solution boo xam ne indi nañu ko ci yow ban jàngat nga def ci situation bi tey. waaw jàngat bi ma ci def mooy euh, aussi fii état bi dafa commettre ay fautes yu bare faute bi njëkk mooy ñi nga xam ne ñooy waa SYTJUST bugg a exercer seen droit de grève xam ne am nañ droit dem grève ñoom waroon ñu jël seeni matuwaay aussi pour assurer service minimum mais même buñ ko deful euh, justice dafa nekk service boo xam day fonctionner en permanence warul taxaw donc état bi moom moo waroon réquisitionner personnel boo xam ne bi par force dañuy ñëw liggéey si pour mu am continuité service public donc état bi mënoon na dès le départ mu réquisitionner ay greffiers defu ko te loolu erreur bu rëy la parce que tribunaux yi c'est bloqué boo bëggee casier judiciaire doo ko am boo bëggee certificat de nationalité doo ko am heureusement ñu ngi assuré ak euh, des greffiers ad hoc mm. yenn euh, kii procès yu mel ni flagrant délit parce que flagrant délit boo jàppee ay nit yoon de wax ni très rapidement war nga leen juger hmm. mais aussi bien constitution bi dafa encadrer droit de grève code du travail ak euh, statut fonctionnaire dafa prévoir ci te ci sax greffier dafa prévoir que euh, war nañu réquisitionner pour continuation service public état bi defu ko foot bu grave la faute bi ci tegu mooy euh, bu fekkee ni dafa am ñoo xam ne dañuy ñaxtu di laaj seeni droit nga xool ko bu baax te waa sudis li nga xam ne ñoom la ñuy ñaxtu ñoom ci seen dëgg lañu ñu nekk hmm. seen dëgg la ñu nekk parce que euh, dañu jël seen xaalis état bi dafa jël xaalis boo xam ni ci ñoom la waroon jëm ay pere de famille ak ay mère de famille yoo xam ni yoon dafa leen woteeloon xaalis boo xam ne bi moom la ñu waroon complété li nga leen di fay yow nga jël xaalis boobu te compensé wuloo ko hmm. te xaalis boobu daawul génn ci budget état bi état bi daaw ko fay ay investisseurs yu daal ñëw Sénégal ñoo ko waroon fay état bi xañ leen loolu depuis 2013 loolu jaaduwul bu leen ko état bi xañee ci noonu parce que dafa bëgg xëcc ay investisseurs waroon na wut ay fonds de compensation mu compenser loolu jël ci budget état bi compenser ko deful loolu li mu bëggoon def ci décret yi nga xam ne moom la ñu bañ a publier mooy yokk tarif yi nga xam ne moom la askan wi war a fay loolu jaaduwul hmm. lu tax ñuy war a xëpp loolu ci kaw askan bi li nga xam ne état moo leen ko xañ ñu xëpp ko ci kaw askan bi askan bi mu mënuñu supporter loolu te jaaduwul sax loolu moo tax état bi mënul publier décret yooyu donc euh, li xew mooy loolu il est vrai que am na ay tarif yoo xam ne war nañ ko seetaat par exemple ay casier judiciaire quatre cent francs Hmm. même bu fekkee am na ñoo xam ne muy supporté quatre cent francs ay tarif yoo xam ni am na depuis vingt ans hmm. tarif yooyu war nañ ko seetaat mooy yenn ak yi mais lañu leen xañ ci alal ba pare bugg ko xëpp ci kaw askan wi loolu moo jaaduwul hmm. te état bi dafa war a communiquer et en plus yow bu fekkee ni yow da ngay diriger nekk état di diriger di dogal nga jël ay accord nga dem ba xam ne accord yooyu mënta nekk mënoo ko respecté mënoo ko def da nga war a am courage da nga war a am mat gu day ni woo ña ko seqaloon woo leen ñu toog ne leen ah ay la yowén day lii man maa leen ko digoon maa ko signé waaye mënul nekk mënul nekk li mën a nekk mooy lii ak lii ak lii nga wax ak ñoom hmm. langage de vérité état bu am bu responsable état bu am courage loolu lay def mais dooni pat noppi kenn xamul lan mooy sa loolu jaaduwul hmm. loolu tax ministre bi lu nekk lañ ko yekk te fekk ministre bi moom yàlla xam na ni ministre bi mënul def loo xam ne li président àndu ci te ministre bi dañ koy xas rek mais mooy suñu kilifa ñun ñëpp dañ ko war a respecté c'est-à-dire ni ñuy waxeek moom li ñu déggee ñuy wax ci rajo bi euh, di ko tudd di ko xas di ko wax lu nekk jaaduwul nit da ngay respecter sa kilifa parce que ku nekk loo bëgg a wax mën nga ko wax mais yaay a une façon de dire les choses qui ne blessent pas waruñu manquer de respect ku nga xam mooy suñu kilifa donc loolu ci grief yi nga xam ne moom laay euh, reprocher waa SYTJUST ci la bokk loolu jaaduwul loolu jaaduwul sa kilifa da koy ormal da nga koy respecté même bu fekkee da koy wax dëgg dafa am noo koy waxee noo xam ne lii du doon aw waxas ñun loolu lañ leen di conseillé. d'accord jàpp nga ni tamit waratuñu continuer di fay salaire yi waa SYTJUST. ah absolument ku liggéeyul kenn war la fay salaire ñun Sénégal rek la ñu gis. te amul ci benn démocratie bu mag boo xam ne bi yow boo liggéeyul bu weer wi day ñu fay la mais doo doo doo doo liggéey boo grévé bu weer wi dee ñu fay la mais doo arrêté grève ci réew yëpp grève parce que euh, xaalis bi ñu lay fayee dañuy publics la dañuy publics ñëpp xam nañ ne règle comptabilité publique mooy euh, li service boo def ba pare moom lañ lay fay mais ku jàngalewul wala fajuloo kenn wala yow justice liggéeyuloo fin du mois ñu fay la nga tëdd sa kër fin du mois ñu la loolu dafa neex ba mu ëpp <laughs> te dafa jaaduwul mm-hmm. ku liggéeyul gréviste boo ne damay exercer sama droit de grève damay banque samay loxo du ma liggéey sa employeur du la fay sa syndicat bi la yóbbu grève moom mooy dem wuti xaalis wut ay ressources mm-hmm. ñëw compenser la te grève bu mel noonu du yàgg mm-hmm. grève boo xam ne dañuy dagg sa salaire nga gis fin du mois nga am genn wàllu salaire mais doo grève wala booy grève grève ñaari fan ñetti fan ngay def loolu moo jaadu mais nga grève weer wala ñaari weer ba pare ñu di la fay loolu fan la am amul ci benn démocratie loolu c'est une faiblesse de l'État mm-hmm. la preuve ba ko fi enseignants yi defee euh, dañ leen def ay ponction ñu menacer état bi état bi delloo la xaalis loolu jaadu na mm. loolu est-ce que loolu respecté na règle de comptabilité publique est-ce que loolu du détournement de deniers publics. ministre de la justice gis nañu ne wuti na ay greffier ad hoc est-ce que loolu saafara na jafe-jafe bi. non non loolu saafarawul jafe-jafe yi te itam du yoon sax loolu xel sax waru ko mën a xalaat parce que greffier métier la te métier bu noble la métier bu jafe la ñi koy exercer ay pères de famille et des mères de famille yoo xam ni des fois dañuy nekk audience ba deux heures du matin wala trois heures yooyu ku leen respecté wul. massawloo leen coono waruloo leen eh, naan da nga leen di jéem a remplacer eh, dëgg naa ñuy wax di xalaat comme niñ fi ràjjee woon ay policiers ñu bugg loolu xel sax waru ko xalaat parce que d' abord greffier ad hoc mënul remplacer greffier loolu il faut xam ko magistrat fu mu toog pour mu mën a àtte lu jaar yoon il faut greffier toog ci wetam li ñu waroon def koy mooy jéem leen wutal statut boo xam ne bii de day niroog statut magistrat c'est-à-dire que ñu am statut spécial boo xam ne bii du ñu mën a dem grève comme ni sapeur pompier comme ni policier parce que loolu c'est prévu par les textes dañ leen waroon defal statut spécial muy enseignants yi muy personnel de santé muy personnel de justice on doit leur faire un statut spécial on doit leur rendre justice jéem leen a fay li nga xam mooy seen àqu liggéey loolu c'est des pères de famille et des mères ñu ngi dem rek ñu dem boo gisee greffier yi ñu ngi dem di wut ci feneen. Hmm. da ngay jàng ba sonn di liggéey liggéey bu metti boo xam ne ay responsabilité la duñ la jox li nga xam ne moom lañ la war a fay j'ai toujours dit et une fois j'ai eu l'occasion de le dire au président nous avons toutes les compétences fii au Sénégal pour développer réew mi hmm. mais les compétences ça se paye ça a un les compétences da nga leen di fay lu ko jar sinon dañuy dem seen yoon donc loolu moo fi nekk mhm. ñu jeexal ak euh, crise malienne bi maître Massokhna Kane euh, politique intéressé na la ndax daan nga ci yëngu ban euh, jàngat nga def ci situation bi ak ni mu wëlbatikoo réew maa ngi ci loxol militaire yi ñu bëgg doxal ñetti at doog a joxe leen ngay waaw Mali li leen dal ñun dañ koy naqarlu parce que Mali mooy Sénégal Sénégal mooy Mali ñëpp fàttaliku nañu fédération du Mali donc suñuy frère lañu suñuy mbokk lañu c'est le même peuple te itam dañuy am ay accords yu am importance te Mali dafa nekk verrou stratégique ci affaire sécurité ci sous-région bi donc Mali lu fa xew ñun daf ñu concerné directement donc ñu ngi massawu population malienne peuple malien ñu ngi leen di massawu ñoom nag ñoom ñoo décidé nii seen njiit dañu bëgg mu changer ñoom ñoo ko décidé ba militaire yi def ko donc loolu ñun euh, on respecte leur décision dañ ko respecter li ñu def euh, li ci kii rek mooy transition bu ñu bëggee Mali gën a stabilité dañuy gaaw a delloo euh, pouvoir bi militaire yi dañuy gaaw a delloo pouvoir bi que wi organiser transition organiser ñu mettre en place les institutions mais dañuy xam ne trois ans ëpp na ci loolu ku waxal dëgg wa xam ni trois ans ëpp na ci xam nañ buñ noon un an wala ñu ne quinze mois wala neuf mois comme ni ko CEDEAO waxee mais francement ñetti at moom euh, loolu jaaduwul donc euh, pouvoir militaire militaire yu bëgg a euh, joxewaat nguur gi réglé waat institution yi créé waat stabilité ci réew mi vraiment ñetti at kooku ëpp na sax kooku defe naa aussi ñu génne waaw te itam Soumaïla Cissé mi nga xam ne dañ ko jàpp kenn xamul fu mu nekk loolu militaire malien yi ñu ngi leen di ñaan ñu liggéey ci bu baax pour que mu dellusi ci askan wi la Cissé dafa am utilité pour réewam Soumaïla Cissé ñun en quatre vingt quinze quatre vingt quinze ba quatre vingt dix huit il était ministre des finances ñun dañ daan tase ci ay réunion yu bare donc Soumaïla nit la koo xam ne ki te moo fi yoroon UEMOA donc nit la koo xam ne kii réewam dañ ko soxla nañ ñu ngi ñaan vraiment soldats yi ñu fexe ba def tout pour que Ismaïla Cissé dellu si ci réewam mën a participer ci construction réew. Mm-hmm. jërëjëf maître Massokhna Kane ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi.